waaw suma gars yi ziyaare leen leen sargal leen di leen bëggee morning show bi la ñu waxal rek di ñëwaat neen rek su comme niñ ko faral di defee mag suma gars yi Omar buuba ak Afa tey ami moom dafa réer kon nag Fatou lañ fi am tey ma bàyyi ko rek ma mu waxtee lu ñu àndi laataa ñuy ko si cappaandaw bi jërëjëf Aïcha asalaamaaleykum good morning viewers welcome to another day another edition and more interesting topics on your morning show Um, first, I uh, would like to do the news review and see what we have. Um, and no, I know it's a sad time for Africans or black people um, mm-hmm. after this mass of protests in America, but most especially in Gambia after we lost uh, their brother Moulamin Sise. And mm. what do you guys think about that after the um, Foreign Affairs of the Gambia, Minister of Foreign Affairs of the Gambia has asked the Gambian embassy in Washington CDC to engage the relevant U.S. Um, authorities. dafa métti si xol. métti na to xol moom parce que soo ko seetee loolu dafa doy waar nit ki génn pour xeex jàmmam nga ñëw na jël bal ba ne ko nga jëlee ko si. soo ma bàyyi tam ñu xool lan lañ cee yokk. waaw jërëjëf Afa ak Aïssa ak gars yi yëpp maa comme nu ma ko jàngatee rek mooy am nit nit la mm-hmm. te nit saa yu génnee àdduna da nga ko war teral mm-hmm. teral bi mooy soo génnee àdduna su nekkut yàlla moo la rey yu mel ni accident wala leneen neen investigate xam kan moo la ko def mm-hmm. waaye loolu nag ma am si benn jàngat rek mooy nguuri Gambia la mi ne war a góor góorgóorlu ndax lu mel ni am na si réew mi waaye ba tey investigation demagul kon balaa nga wax ni sangu yow nga sangu ba pare soo ñoom tamit neen fexe daal jëm si góorgóorlu xaaroon ne jaata bi kenn mënut a xam ba demee investigation yu nguur gi def doo dee gis benn report so ñoom tamit war nañ gën a góorgóorlu ah, ma ngi leen applaud tamit because am na taxawaay bu nga xam ne ñoom jël neen ko pour wax ne seen doomi réew yi neen fexe ñu xam nu suñu doomi réew yi gaañoo ak fan neen fexe ba teg ñëw ñu si yoon mm-hmm. ndax teg ko si yoon mooy tax ah, leneen du amati mm-hmm. wala mooy tax xel yi dal mm-hmm. waaye ñoom tamit war nañ si amaat jànga bu nga xamante lu nga xamante mu ngi am si réew mi fii warut te mu ngi am lu mel nii da ngay rey nit ñooñu ñu ngi investigate da ngaa dégg report ñu ne ñu ngi investigate investigation bu nga xamante ni report du génn recommendation duñ ko apply te xam nga loolu tamit dafa dafa doy waar. kon nag loolu soo ko amee doo mën a wax beneen réew tamit pour mu def li nga xamante moo war te yow defoo lu war. Well, uh, I think uh, what the government has done is a step in the right direction, but uh, I think that there are a lot of contradictions because uh, we've seen the government activists who planned a protest against the discrimination in the United States against the black Africans or African Americans. it Madi? Oh. Yeah, yeah. Um, That's a uh, Black Lives Matter protest that is oh, planned okay, on, June, yeah. on June 8th. But they've met the police yesterday and the protest is postponed. Oh, wow. And we've seen uh, activists all over the world, even in the uh, United, United Kingdom, uh, their citizens are going against laws mm-hmm. just to show their anger and frustration. Yeah, born so, in places. So, mm -hmm. I mean, a, a Gambia, the home of Lamin, La, La, Lamin Cisse, is denying the citizens to protest. What do you? I mean, it doesn't tell well. That's second, and and his father is a diplomat, so they can use their diplomatic ties to follow up the matter. But the people should let to vent their frustration. Uh, definitely, it is a genuine act, but there's an act of hypocrisy in it. Bearing in mind what has happened in the Gambia, and still they're not doing anything. Um, if you request for perhaps for protests, we know we're in state of emergency then they could have organized it in such a way that it is not going to be a denial, but you deny people, but you still requesting a government in another country to make proper investigation to yeah. try to find out how that person passed away. So I think the government, even though it's a good move, but then they also have to do their assignment properly. Why man lu ma Gambia ñu ngi wax loolu de Gambia yéen a su fi am sax investigation bi ñu amar Omar dañoo commencement bi moom mun nañoo xibir xabar. gaawal affaire bi umbal ko rek ne dinañ dinañ ko dinañ ko bàyyi xel waaye su paasee ñu si ëpp sax duñ si dee delluwaat ne foog ñu leeral ne comme kii rey nañ ko foog ñu xam ko ko leeral commencement bi moom dinañ nekk di jaabante nii ak nii waaye duñ la amee ressource ne. kii moo rey kii wala lii ak lii soo loolu yëpp war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax xam naa kon léegi moom dañoo jàll si beneen segment bi rek waaye Aïcha diñ ko mën a wax ba jeex te jàlle wuñ family bi ah. we are uh, sending our condolence to the victim's family yeah the victim family rather or the deceased family mm-hmm. it's very sad to have your um, son or brother over there and he died out of that thing. To all Gambians. Yeah, to all Gambians, like Black Lives Matters. Black Lives Matter. question mooy bu leen tuuti rek buñ dellu see mu gën